Ah, man maa ngi tudd Mamadou vétérinaire la bu installé wu fii Touba depuis 1995 laa fi nekk a ah, damay yëngu ci fajum jur di faj xar yi di faj nag yeeg bëy yeeg lépp di yëngu tamit ci liñ naan pompe nag yi pompe bi nag am na njëriñ ndax bi ñu dalee pompe lañ gis ni am nañ ay nag yu nga xam ne mën nañoo génne juróomi litre meew alors que su nag yi fi nekkoon benn litre dong lañ mën a génne juróomi litre meew yooyu nag yi koy génne dañoo juddoo ci nag yu tubaab yi ñu boole ak sunu nagu réew mi biñ jaxasoo ñu am warale buñ jur bu nga xam ni day joxe juróomi litre meew juróomi litre meew woomu euh, sàmm nga xam ni da koy jëfandikoo mën na cee jël am lum dunde yóbbu ci këram mën cee jël it am lu nga xam ni da koy jaay am ci xaalis bu muy dugal ci poosam Euh, pompe nag yi lu baax la lu am solo la waaye il faut ñu sàmmonteeg ay tëralin yu xam ne mooy tax pompe bi gën a mën a jaar yoon ñu gën cee mën a am sëll yu bëri ak meew mu bëri tëralin yooyu looloo tax ñu leen di digal ci tëralin yooyu bi ci njëkk mooy ngeen taxawal nag yi yeew leen ñu bañ di dox lu sori pour di sàmmi ndax boo leen yeewee dana tax lu ñu soxla ci dund bi nga xam ne dañ ko doon euh, jël di ko doxe danañ ko mën a def seen yaram mu gën a baaxal seen yaram te it dana taxit lu ñuy xalabati dootul bari bu ci ëmb dootul bari lu muy xalab pour pompe bi pour mu am résultat yu baax li ci gën mooy ñu xool nag bi ndax max na walla maxul xool bi nag li ci gën mooy ñu def ko guddi gi ndax nag yu bëri guddi gi lañuy max bu fekkee nag bi max na ci guddi gi dañ koo war a pomper ca suba ga bu fanaanee ba ca suba gi ñu pompe ko bu fekkee nag nag bi dafa max ci suba gi ci ngoon gi lañ ko war a pomper loolu daal moom mooy baaxal pompe bi bañ mën a am sëllu yu mucc ayib buñ pompee nag bi ba pare li gën mooy ñu yeew ko mu bañ a sàmmeeti ndax buy dem di sàmmi mën naa xalab xalab boobu mu ngi koy jële ci dox bi dox bu sori bi muy def di wuti lu mu lekk lu mu dundee donc li gën mooy ñu yeew ko mu bañ a sàmmi bu fekkee ni sëll bi day nàmp yaayam li ñu seetlu mooy euh, li ñuy pompe mu jàpp day néew donc li gën mooy bu fekkee sëll bi mënuñ koo xaajaleeg yaayam tout le temps ñu bàyyi ko ba nga xam ne des na ñaari fan ñu pompe ñu daal di ber sëll bi bañ pompe ba pare door koo boolewaat ak yaayam donc ci wàllu wér-gu-yaram gi am na ci solo lool ndax bu fekkee ni nag bi dafa feebar boo ko pompee lu ci ëpp du ci jàpp bu jàppee it mën naa dem ba xalab ah. Ah. sàmm bi dafa war a jël ku koy pompeel mu nekk ku nga xam ni xam na liggéeyam ndax bu ko defee du gaañ nagam bi te loolu dana tax ba mu mën cee am sëll yu baax pompe bi jaar yoon